fii ci euh, musée bi nga xamante moo nekk Jaxaaw Siin fas yéene tontu ci seen i laaj. Cuppaan euh, bu ñu la ko waxee cité la boo xamante nii mu ngi ci biir dëkk bi ki ci euh, cité bi nag dafa nekk cité bi nga xamante ni reen bi moo fi doon dëkk muy Linguère ndax pour nga nekk Linguère xam nga ne il faut nga bokk ci famille maternelle Gelwaar kon Linguère ndomb la bu nuy fal comme ni ñuy fale buur noonu la ñuy fale Linguère bu ñu la falee nag fi ngay dëkk doo dëkk ak buur buur day dëkk fële yow nga dëkk fii boo fi dëkkee tamit danga am ñeneen ñoo fiy dëkkaaleel gis nga cité bi nii fii ñu nekk nii fii la Linguère bi daan dëkk mais gis nga quartier bi ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñu la waroon dëkkal muy ay géwélam ñoom ñoo ci dëkk ndax boo xoolee quartier bi keneen ku dul géwél dëkku fi liñ ci mën a fàttali mooy buur manta am te Linguère amul Linguère bi mu ngi war a doon ndey ci buur bi mbaa jigéenam mun a nekk rakkam mun na nekk magam ndax loolu dafa bokk li nga xam te ni day motli couronne bi bu bu buur amee te Linguère amul rek matu kon moo tax gis nga fi ñu nekk tey euh, Linguère ba Diène mi nga xamante ni moo fi nekkoon bi mu wàccee ñu ngi fal tey Linguère euh, bu Ndiaye fii bu fekkee da ngay gelwaar bu jigéen armeel yi day ñaar bu fekkee dangay ngay gelwaar bu jigéen te jotoo ci couronne bi boo faatoo fii nga njëkk a jot fi lañ lay denc mais boo dee geluwaar bu jigéen tafalu boo faatoo ci armeel yële ci kaw fañ lay denc ndax fii duñ fi denc góor jigéen rek lañ fiy denc ndax gelwaar yi dañu am armeel yoo xamante ni góor ñi ñi ju ñu faluwut daa am fu ñu leen di denc ñi falu daa am fu ñu leen di denc mais fii nag ci Thioubane benn cité la ñëpp fi lañ leen di indi waaye am na ràññeetle boo xam ne boo ñëwee di nga xam ne fii kat mooy cité Linguère armeel yi mooy armeelu gelwaar yi waaye armeel yële mooy armeelu Linguère yi Linguère Mbacke Ndiaye mi nga xamante ni maam la tey ci bu njaay mii nga xamante ni moom lañuy ñuy fal ci ci ci ci jamonoom ci la Buur Sine Coumba Ndoffène seere Sëñ Tuubaa ci Ndar keroog bi nga xamante ni 1903 mu ngi dem Ndar Buur bi mu jógee kër buur fii la ko fekk mu yaay ci moom mu tàgg ko mu yeb ko ñaanal ko ñaax ko ne ko demal te indi ndam ak manoore ba mu ko defee na ko waxee suñu borom ànd na ci ba mu dem indi ndam indi manoore ba tey ci la ñuy màggal màggal gi nga xam mooy le 7 juin di ko defal Buur Sine Coumba Ndofféne

fara girig kamaɗen fara wuude kamaɗen bo fara kembak o kiino kiin fo kalaɗo cekirew nanano kiino kiin o nomala o geeno o ndukan taxa toɓaye kamay ten taxu pangim fop fara ruur kamaɗen yoroxil kamaɗen waage fag i fara gonga madid koɗo fiyagan nu muñ koy nu ɗeet ke ɗa andoona yee yooɓee ga'el no ngidum yooɓee maadel e o cigel ino xaye ten na dodel yaasam ta jeg barke lingeer Mbakke Njaay lingeer Kuba Ñoob lingeer fu joonna men sinig yaasa bol dina sinig kon foogaam ee koɗoxe waagaxongo xaj o jotin bu da riɓaana bo wiin we mbaag ten ten na yo den fa lingeer ne da fi'ogeena den mbokatooge in koy kay soɓna meen ten rek i mbi'aa la parce que xaye nee na tey oxen ne ta ma ko waxee mi a moo des ngeekoox mi war fi kene moo war a fal ya um nee na yaayam man maa ko fal nee na moom moo ko faloon oxe refna toog ya um yaa faat jeen ak yaa daba jeen mi dodun yaay bursin moom mi moo leen faloon ten xene moom mi tey maxey donan xaye sam koy nee yàlla taxu paki daga ya min jigna ya sam taxu na din eh, ya sam taxu na din neena na biat eh, eh kene koy neena li eh ka def cosaan da doon ten taxu moo tax in in séeréer ñun séeréer ngim kay def na war nañoo gëm li ñu parce que ñàkk a gim ke refoona ñàkk a li nga doon moo fa moo bota bostu wong la o sagna askan fa lakas ne nga def ah musiba jëli ren de fat i moy to koy to ngoy to jam refe teen de to ke ndoya koy ke ndoya i mbasangiran me njofa soti ke soti ke de a refange ino a ref xa ɓiya xe ngaƴna a cin ku refna ko war o jeganga ɓasil o jangna den ke andoona yee ten jangin len i o jangna den ke andoona yee ten jangin len a ngeeko xaye a jega may wa andoona yee o den ee juur ki nga tuuri ñu ne duñu man dama dinaa tuur ba pare tere suma kuréel bi xam naa li ma xam naa li ma jég ak li ma mën ah leen ne ngeen góorgóorlu góorgóorlu leen góorgóorlu leen waxoon ne koy yaa sam rogo yàlla ko ciin barke yàlla ko yàlla may yaa sam rogo yàlla ko ciin barke yàlla ko yàlla may barke yaa sama daaw barke papum yàlla ko barke papum kenn rek jëm kam laa teen mbaasan mbaasan naa ma nee na loola ci amoon lu ale koy nee na te ndefu Linguère Codé Ndiaye Codé Ndiaye bi ko laajee bi falee ba noppi dañ ko laaj ne ko yow yaay Linguère Codé Ndiaye yow yaay kan mu ko man maay Linguère Codé Ndiaye i maanaam o tubaab naa la ne la résurrection Linguère Codé Ndiaye soose mi fi newoon waaw daa dellu siwaat misaal ma keroog bi ñu falee bur sin baay faat jëm ci penc mi ñu lay ko ne ko yow yaay kan mu ne man maay bur sin ku ma ndoofeen ngem lam ko waxee woon noonu dikkuwaat kon Linguère kon Ndiaye Socé. yaayam def ma ne woon man maay sama mag. nee na yaayam da man maay sama mag. ma ne ma ne ko loo indaale. mu ne ko loo mu ne ma jàmm ak salaam. mu ne ko nguuru jàmm ak salaam. mi ne na ma ba ma fiy jógee. newoon na ko suma sama doo doo dégg ay boo xamante ne ëpp na senegal bi doo dégg loolu la ma bàyyeekoon ne loolu la ko waxoon itam moo amoon ba fii te loolu amoon ba mu jóge fi voilà exactement mbokk euh, lu tëgg tas waaye bu neexee des ci xol ya kon donc tey euh, yaakaar naa ñu àndoon ak yéen ci bis bu am solo boo xamante ni tey euh, mu doon palub Linguère fii ci jaxaw siin mu doon mbir moo xam ne mu ama am solo la gis ngeen den ko dundee ci commencement bi ba fin bi donc fii lañ njëkkee ci kër bisik bu ñu fa jógee ñu dem Cupaan donc ñu daal di fal Linguère ñu ngi koy ñaanal suñu borom dogal yéen bi woyof toll ci kawam ñaanal ko rôle bi nga xamante ni tey moom lay taxaw muy rôle ci ñaw rôlu jigéen ci jàngale waaye rôlu jigéen ci xelal ak defal yàlla defal ko tawfiix ak tayseer fii ci jaxaw siin te nag pal yàlla na fi gëj lool ndax ñaanal nañ ko suñ borom may ko gudd fan gu mat sëkk ñu ngi ko koy ñaanal ak ñëpp ñi nga xam ne tey moom lay àndal liggéey bi gërëm spécial bisik mi nga xamante ni tey euh, lii da koo ñor ñor bu am solo lii aussi mu jël ko gàdd ko mu doon benn message bu am solo boo xam ne da bëgg a jàllale Sénégal gépp moo tax mu médiatiser ko wax dëgg yàlla gis nañ ca suba ba tey mbir mi nga xamante ni tey moom moo fi am fii ci jaxaw siin mais aussi di beral ak cant spécial professeur mi nga xamante ni tey moom la doon àndal liggéey bi donc muy professeur bu ama am xam-xam boo xamante ni tey suñ borom dogal na mu gëstu géeju ci lépp loo xam ne dafa doon histoire siin donc ñi ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne tey ñoom ñu àndal nag ñoom ci liggéey bi aussi di gërëm suñu euh, caméraman muy bay bay ñaan suñu borom defal ko tawfeex ak taysir kon donc mbokk yi li leen leen indiloon fii ci jaxaw siin ci paluk bi nga xamante ni tey moom moo fi amoon di paluk euh, soxna si nga xamante ni tey fii ci jaxaw siin ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.